leen baay barahama jërëjëfe baay war baay wa rahmatullahi wa barakaatuhu waaleykum salaam wa rahmatullah euh, euh, jàmm rek la man maa bëggoon a waxtaan ak samay mbokk ci wàll ci daaira bi mu bokk la moo xam beneen daaira la ndax am na loo xam ne yaakaar naa ne ñépp la concerné lu concerné ñëpp nag boo ci amee gis-gis war nga koo mën a partagé ak ñëpp dafa am kenn ci mbokki taalibe yi ku ñëwoon jamono yenn sàkku ci man ma waxtaan ak taalibe yi ci wàllu doxalin waxtaan ak ñoom ci jamono lu dellu rek ci mbiram taalibe ndax taalibe am na nu muy doxee ak nu mu warta doxee ma ne ko ah ndax dina jëriñ foog nga ne dina jëriñ mu ne ma ah, foog naa ko ma ne ko ah man de dama gis at yii yëpp de maa mu ne ma daal am na précision yoo xam ne daal war nga ko war nga ko ci def mu doon loo xam ne ñëpp a ko ñëpp a koy jëriñoo mu ne ah waaw baax na dinaa ci xalaat yàlla dogal na nag xaal bi ñëwal ma moo tax ma ne naa ci waxtaan ak taalibe yi mu doon wax joo xam ne ah ak laa biire rek la benn la woon démb mooy nit ki daf daan góorgóorlu ci diinaam ba xam diinaam ba yeewu ci ba xàmmee bu baax mu soog a xeeñtu yeneen fànn gu mu moo xam lasaraar la moo xam wàllu maarifa la lu mu mën a doon rek lee mooy jiitu toujours la daan demee mais tey li seetlu ci jamono mooy xale boo xam ne njàpp ma sax xàmmeewul farata ak sunna bii sóobu yàlla defal ko tawféex ndax xam nga rek baay mm-hmm. ko yàlla defalee tawféex mu am fatfu mm-hmm. ah foofu dama koy misaal rek ci zahir boo xam ne baati ci baati boo xam ne zahir bu ngeewu ko mm-hmm. waaw dégâts yi day bëri lool bu ta bu bu dajewut ak cheikhu mu rabbi bu ko laaye biir te mu doon it nag koo xam ne dëgërul bopp neex naa laaye biir ndax Baye Makhtar day wax ne ku bëggul kenn mënu ko jëriñ loolu bu amul rek dagaaya doo xam foo koy natt kon euh, li may wax mooy dem jàngi moom mën na wees dem jàng moom mën na wees waaye jàng moom du wees dem jàng moom mën na wees waaye jàng moom du wees te ki yàlla yónni woon ci ñun wax na ne sallallahu alayhi wa sallam ne na nañu ut xam-xam donte dañu dem ba lima li may wax loolu baatin bu saayir bu ngewut daf ci ñu a wax war a mhm. ah loola moom faaw rek dégaaye bëri mhm. waaw kon nag maa ngi wax mhm. ah nañ dellu ci delluwaay yi taalibe du kuy gàggante koo ci nga laatlu mhm. laatlu ndax sëriñ taxawaayam lan la xam mu wala lool ci njub mhm. nga ànd ak moom mhm. am na ci loo xam ne nag waratu ca laa yokkoo waay waay waay waay tarixa bi bañul nga dem seeti keneen feneen foo gën a mën a yokkoo mhm. waaye nag bul ko xarab mhm. bul ko xas mhm. bul ko ngañ loolu dee boo ko defee def nga lu Cheikh Tidiane bëggul ndax nit ki mënut laa jox lu mu amul <laughs> bii nii. dafa indi yàq-yàq yu bëri. te damay wax ne moo waral yii xew di xew. Mhm. Mhm. soo gisee yii xew di xew. Mhm. responsabilité la. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw buñ demee ci ruuxul adab it da nga gis tax ma wax lii. yow matutoo ko sëriñ ma matatu ma taal matu matatu ma sëriñ yow matatoo ko taalibe léegi nag. Mm-hmm. la fay bàyyi ñenn ñi. li damay wax rek ci xeeti yàq yi la fay bàyyi ñenn ñi mooy. mbiru copinage. ci sama xarit la fii laa am sa ay wëllëre yàgg naa fii et cetera et cetera. léegi bu boobaa nag xam nga lu la tey fekk say xasanaat mooy xal di dem. parce yaa ngi ci foo xam ne yow. warata fa yokko waaye terewut yaa ngi wax yaa ngi jëf te la ngay wax la ngay jëf yëpp du lu constructif kon say xasanaat nga fay ñàkkee kon loolu it ko nit ñi moytu mhm. inshallah mhm. te dara waral ko lu li ma wax nii rek rakkante ko ci mbedd ak ah. lijjanti loo war te lijjanti dugg ci loo xam ne sa yoon nekkut ci <laughs> gannaaw bi nga xamee jëfeel ndigal yi bàyyil tere yi nii de la taalibe di doxee njëriñu ci ak ak taalibe dëgg la bàyyi waaye am na ci diggante yoo xam ne ci ak sëriñ ak taalibe wallaay maslaa moo fa nekk waaye taalibe bi ci boppam moom xam na ne mënatu ci jëriñu ci kii sëriñ bi ci boppam it xam na ne kii mënatuma ko jëriñ parce que dafa am loo xam ne naatu fi wolof dafay wax mu ne kóllëre bu wëttee du jox si mhm. ñaare de bu wëttee du jox si gis nga ku fi maye ci sa pas-pas mhm. nit dugg ci taxat taxatee sa sëriñ mhm. nga déglu ba ci même boo ne gëw ma wallaahi na nga jàppee woon sa sëriñ dootoo ko ko mën a jàppee wallaahi lazim mukk dëgg la moo tax pas-pas dañ koy am farataay jamono. Hmm. nit ki bu xàmmeewul farata xamut farataay jamonoom. Hmm. laa budde mu tardé laa budde mu dellu ginnaaw. Hmm. parce que weesuwul rek nga war a yittewoo li mat a yittewoo nga romb ko fa dem ci yi nga xam ne. amul solo wala daanaka solo si bariwul. maa ngi wax samay mbokk taalibe laay waxal. bëri na ko xam ne jël na tarif salaat yi moom mu ngi ca subhaana rabbika rabbil izzati am na koo xam ne tey bu nga balaa nga xam ne rek farlu wuñ ci li ñu waroon a farlu mhm. su ngeen toogee ci wasifa na muy yàqee jawartu kamaan bi mhm. na muy yàqee yenn baat mhm. kon nga xam ne te boo ko ne kaay kaay ñu commérage mu ne la soxlaatuma añ ak reer na ma hmm? <laughs> waaw loolu mënu ci loolu mënu ci jëriñ ah, tardé la de tardé la de hmm, hmm. lii fan nga nit di jaar ba jëriñ ci lu ni mel mën ko def kon képp ko xam ne bëgg na jëriñu ci yàlla na ko teg ci yoon mbir mi mu nga fam nekkoon ba tey jógut fa nit ñi ñoo jaaru fa gaaña daan jaar tardement beeg sooxe sooxe yépp loolu moo ko waral كان الصلاة فاته te mën naa ñàkk de mhm. waaw lu mën a ñàkk waaw waaye yëf yi am na garanti ku soobu ànd ci yàlla képp ku yàlla tax a jot nga wéeru ci Seydi Ahmad Tidiane ànd ak Baay Ñas bàyyiloo xel waaw bàyyi wax na ne tarixa bi kenn mënu ci leen ko fii. danaa leen la ñuy wax xam ne la nga def wala la wax lu ne weng la mhm. man danaa ca duut baaraam mhm. ne lii jaaduwut ndegam am nañu topp ci sama ginnaaw mhm. danaa leen ne lu lu ni mel bu ko kenn def su fekkee nag ñoom moo indi noonal bi na nit ñi continuer ñenn ñi continuer ci noonal bi ndax loolu man duma ko bàyyi xaritoo wu ma nit jegewante wu ma koog nit. kóllërante wu ma koog nit. Ah. parce que li ma def mooy appliquer li yonent bi wax. macha gannaaw yow ñaawteef ji da danga ko def mu ne weng wala nga wax ko mu ne weng. Mhm. danañ ci teg baaraam. <laughs> waaw wane ne lii jaaduwut lii rafetut. te lu ni mel bu kenn roy. Mhm. lépp kuy wuyoo taalibe nag bu ci lii. Mhm. dëgg la loxo jaay paal. <laughs> man de képp ko xam ne gis naa as sikk ci suuf la lu biire la loo nëbb la loola man suma ma la ci bëggee dimbale woo la waxtaan ak yow ci suuf mm-hmm. ma sàmba du xam ma ne ma ne waaye lu ne weng mm-hmm. <laughs> foo ko déggee tey ah damay damay def la ca war. la a war dëgg la Touré. waaw lii kese la. dëgg la Baye lii kese la. Mm-hmm. jaawale gi nag métti na. Mm-hmm. ñu bëri dañuy jaawale waaye nag mbir mi lii la de. Mm-hmm. mi lii la de moo waxaat ne man xaritewuma ko nit. wóor na rantewuma santaane bu muuma rek nga. waaw gis nga lu ne weng nga ne da nga koy maam yow de xamoo diine ji kon. Mhm. yow de kon xamoo sax luy diina. Mhm. saytaane bu muuma rek nga nag. <laughs> gis dëgg goo war a wax. ya yàqu. Mhm. waaye nit ñi nañ def na lii jaaduwut. wallaay. Mhm. ana lan mooy maam bi. <laughs> xam dëgg nañ xam ne. dëgg la. شاء الله Yes, by.